الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونسح الأمة ومحوى الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فسل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله mbokk yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñu ngi fàttali sunu bopp di leen fàttali ne bokkaale yàlla tabaraka wa taala dafa am ay jeexital am ay lor athaaru shirk wa adraaruhu
bokkaale yàlla bon na bon boo xam ne dafay jeexital waaye dafa am ay lor yu muy lor bokkaale azamu zunub bakkaar yi gën a rëy yi gën a bon ci kaw suuf mooy bokkaale lan moo tax bokkaale gën a bon bakkaar yépp li annahu tasbix lil maxluqi bil xaaliq fi xasaaxisihi al ilahiyati faman ashraka maahu ahad faqad shabbahahu bi wa haza azamu zulmi qaala taala inna shirka la zulmun azim lan moo tax mbokk jullit yi bokkaale moo gën a yées ci bàkkaar yi moo ci gën a bon kii bokkaale day nuroog day nurale yàlla ak mbindeefam wala muy dendale yàlla akub jaam moo tax moo gën a bon ki jël mbindeef di ko dellale ki bind nga jël mbindeef wala nga jël dara dendale koog yàlla ci ay melokaanam moom yàlla subhaanahu wa taala nga xam ne moom dong moo ko mel wala ay jëfam yoo xam ne moom dong moo koy jëf nga dem ñot di benn mbindeef jël loolu yàlla moom di ko ko jox wala nga yaakaar ne waajooju mën na loolu moo tax borom bi subhaanahu wa taala nee na loolu tooñ bu rëy la ndax mën nga tooñ moo tax mu ne képp ku bokkaale ci suratu luqmaan mu ne inna shirka la zulmun azim tooñ bokkaale tooñ gu rëy la koo tooñ borom bi subhaanahu wa taala lan mooy tooñ mooy wadu shay fi gayri mawdiihi loolu mooy azulmu wadu shay fi gayri mawdiihi mooy nga jël loo jël nga teg ko fi nga ko warul teg tooñ nga tey boo yoroon oto rek nga ñëw gaare ko fi nga ko warul gaare bu borom parking bi ñëwee lu mu lay wax saa yoo jëlee mbir nga teg ko foo ko warul teg tooñ nga moo tax soo jëlee li yàlla moom nga jox ko mbindeef tooñ nga yàlla soo jëlee melokaanu yàlla nga melal ko nit tooñ nga moo tax yàlla mu ne tooñ bokkaale tooñ bu rëy la faman abada gayrullah faqad wada al ibada fi gayri mawdiiha képp ku jaamu keneen ku dul yàlla jël nga jaamu nga teg ko place bi nga ko warul teg saa yoo defalee mbindeef li yàlla moom nga jël jaamu lépp luñ naan al ibada nga defal ko mbindeef tooñ nga ndax dangaa jël lu mbindeef moom nga jox ko ko te moomu ko borom mbindeef yi moom moom moom loolu ñaareel bi mooy li tax bokkaale bon mooy anna allaha axbara annahu laa yaxfiruhu liman lam yatub minhu qaala jalla wa ala inna allaha laa yaxfiru an yushraka bih wa yaxfiru ma duna dalika liman yasha li tax bokkaale bon mooy yàlla du ko baale ndax bon bi mu bon ñaaw bi mu ñaaw képp ku ko deewaale tuuboo balaa ngay faatu yàlla du la baal borom bi ne li wóor tey mbir képp ku ma bokkaale du ma la baal innahu man yushrik billah képp ku bokkaale yàlla faqad harrama allahu alayhi aljanna yàlla araamal na ci yow safara aljanna safara direct nga jëm moo tax bokkaale baaxul ñett anna allaha axbara annahu harrama aljanna ala almushrik xool àjjana ni mel yàlla dencal ko mbindee fii ba pare delluwaat ne ku ma bokkaale araamal naa ci yow aljanna yow doo fa dugg suñ ne mbir mi araam na ci jullit mooy waru ko def su yàlla ne aljanna araam na ci diw kon du fa dugg ku duggul aljanna foo jëm loolu moo tax mbokk yi bokkaale bon ñeent ci wane bokkaale dafa bon ashirk yuxbitu jamiul amal kii bokkaale mbooleem jëfam yépp a yàqu benn borom xam-xam bi mu koy misaal dafa mel ne dafa wax ne mu ngi mel ne nga yey gerte ba sa gémmiñ fees gémmiñ gaa ngi fees del neex ngay waaj a wann nga dugal bu nëb loolu nga yeyoon li muy fees fees noo koy def da ngay yàbbi noonu la bokkaale mel da ngay yendoo jaamu yàlla ba tëdd jot nga ne nangam maa ngi tëdd ci nangam sa jëf yi nga yendoo woon yàqu depuis suba ba guddi gi lépp yàqu na bokkaale baaxul mbokk yi te tey néew na nga xëy ci réew mi suba ba ngoon gisoo wala déggoo bokkaale néew na ku ci mucc daanaka sax dañ naan ku bokkaalewul bokkoo réew mi dem na ba yàlla rek amul place yàlla kese kese yàlla ak yàlla ak bu neexee yàlla ak diw ci barke diw nangam diw diw yenn saa yi sax nga gis koo xam ne moom du tudd sax yàlla dégg naa ku ma ne man ku ma waatal ci nit rek diw rek jeex na gëm naa ko la hawla wala quwata illa billah loolu mooy bokkaale te wallahi ku ko dégg di féetéerlu ba dee di nga rëcc loo doon loo doon juddoo ku dégg nangam bokkaale la ba nga bañ koo bàyyi nga féetéerlu ci ba dee dugg biir bàmmeel di nga rëcc loo doon juddoo moo tax bokkaale amul njëriñ mbokk yi borom bi subhanahu wa taala mu ne zalika huda allah yahdi man yashaau min ibadih walaw ashrakuu la habita anhum ma kaanuu yacmaluun wa qaala taala walaqad uuhiya ilayk wa ila alladina min qablik lain ashrakta layaxbatanna camaluk walatakunanna min alxaasiriin borom bi nee na léeg-léeg ngeen di seen mooy tawxiid mooy njubal yàlla léeg ngeen di dégg ñu naan nañu kennal yàlla yàlla bu ko kenn dendaleeg lenn ñu ne ah mu ne hudallah mooy njubal yàlla de loolu la yàlla bëgg ci jaam yi nee na képp ku bokkaale yàlla sa jëf yépp yàqu na walaw ashraku la habita anhum ma kaanu yamaluun képp ku bokkaale rek sa jëf yépp sippeeku na loo defoon yàqu na yàlla bëggatu ko borom bi yemul ci loolu waaye def ñoo joxoñ yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam muhammad ni mu màggee ci yàlla amul mbindeef bu mu tollool mu ne yonent bi sax su bokkaalee ay jëfam yàqu kon keneen kan la wa laqad uuhiya ilayka yow muhammad dee naa la wax naa la wax naa ñoom ibrahim ñoom muusa ñi la jiitu woon la in ashrakta wallahi boo bokkaale yow muhammad la yahbatanna amaluk sa jëf yëpp dana yàqu wala takunanna min alxaasirin di nga bokk ci ñu perte su muhammad pertee kan mooy am bénéfice bu yàlla waxee ni muhammad ne ko soo bokkaalee yàqule kon keneen nañu leen dellu si xel yi kon keneen waxi noppi ndax amul ku gën a rëy martaba muhammad ci lislaam ku jàpp ne am na ku gën a rëy muhammad martaba kooku moom yéeféer la waxatuñu musrik mais yéeféer la génn ci lislaam bu yàgg juróomeel luy wane mbonu bokkaale al mushrik xalaalu dami wal maali mushrik fu ñu ko fekk dañ ko war a rey alalam dagan na qaala taala faqtulu al mushrikina haysu wajadtumuhum waxuzuuhum waxsuruuhum waquduu lahum kulla marsid loolu lan la yàlla mu ne fu ngeen fekk bokkaale kat yi rey leen leen na ngeen leen rey parce que bokkaale kat moo amul place ci lislaam wa qaala annabiyu sal allahu alayhi wa alihi wa sallam umirtu an uqaatila annaas hatta yaqulu laa ilaha illa allah yonent yàlla muhammad nee na yàllaa ma jox ndigal naa xeex ak képp ku bañ a kennal yàlla képp ku bañ a wéetal yàlla yàlla daa yónni yonent pour mu xeex ak yow kon mbokk yi bokkaale gi ñu nekkee guddeeg bëccëg nga xam ne ku xëy suba sax foog nga sotti ndox ci sa buntu kër foog nga sotti ndox sa buntu néeg foog nga sotti ndox ci taabal bi foog nga sotti ndox ci oto bi foog nga takk lam foog nga takk pitaaw foog nga takk ay xaaw foog nga raay photo foog nga takk photo foog nga foog nga foog nga fu ñu jëm ak moom bokkaale la ku ko bàyyiwul boo dee da ngay dem safara lu yàlla nax ne baaxul baaxul lu yonente ne baaxul baaxul su nit fetteerloo ba dee day lor boppam kese juróom-benneel luy wone mbonuk shirk bokkaale baaxul ashirku akbarul kabair qaala alhabib muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala unabbiukum bi akbari lkabair qulna bala ya rasul allah qala al ishraku billah wa uququ lwalidain bokkaale moo gën a rëy moo gën a màgg ci bàkkaar yi ci mbon yonent bi nee na ndax du ngeen ñëw yéen sahaaba yi ma wax leen bàkkaar yi bi gën a rëy sahaaba yi ne ko aha kay yow yonent bi mu ne leen bokkaale yàlla dendal yàlla ak ku mu warta dendal ñoddi mbindeef ne da nga koy nuróoleeg yàlla wala jël li yàlla moom nga koy jox looloo gën a bon ci bàkkaar yi ñu ne yonent bi ak lan mu ne dënge sa ñaari way jur ñi la jur nga leen di dënge munuñu am jàmm ci yow yonent bi nee na bàkkaar yi moo gën a rëy ci bàkkaar yi ixwaan yi juróom-ñaareel ci mbonu bokkaale ashirk naqsun wa aybun bokkaale dafa manqué ayib la sikk la lan nga manqueel yàlla nga manqueel ku manqueel yàlla lan mooy sa fay ayib la kan nga ayibal yàlla ndax da nga ne yàlla lim mën nit mën na ko diw mën na ko wala li yàlla di def diw daf koy def bokkaale weesuwul loolu sunu borom subhanahu wa taala moom melokaan yooyu moo ko moom moom mooy borom kun fa yakun men baat boobu sax léegi da ngay dégg ñu ne diw borom kun fa yakun la da nga koy dégg léegi diw na bu dee na am mu am loolu yàllaa ko moom melokaan yooyu borom bee ko moom ku ko ñod di jox ko keneen ku dul borom bi borom bi dina fudd sa ndigg aqulu ma tasmaun wa astaghfiru llah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwa alghafuru rahim alhamdulillahi wahda wala na'budu ghayra mukhlisina lahu ddin walaw kariha alkafirun ixwani adraruhu lan mooy lori shirk lee mooy asaar yi yii mooy lor yi muy def bokkaale kat foo ko gis mi ngeeg lor yii lan moo tax loolu mun ko dal ba muy lore lan moo tax bokkaale di jeexital ci dund mooy daafu taazimu rabb taala li tax muy dendale yàlla kenn mooy gëm gi mu waroon gëm yàlla màggal gi mu waroon yàlla màggal yàlla moo yambare ci xolam bëgg bi mu waroon bëgg yàlla moo dee ci xol bi loolu moo tax muy dendale muy jaawale yàlla ak yaali waaw loolu gaa yi naan bul jaawale pomme de terre ak Angleterre ku jaawale pomme de terre ak Angleterre moom mooy lan mooy ngay jaawale yàlla ak yaali ngay jaawale ki bind aji bind ji ak ki bind mbokk yi lu ko waral mooy ngëm moo dee ci xol bi amatul ngëm moo tax muy dendale yàlla ak keneen lu ko waral mooy mbëggeelam ci yàlla moo tuuti yàlla wax na ko wa ida zukira allahu waxda izmaazat qulubu alladina laa yuminuuna wa ida zukira min dunihi fa ida hum yastabsiruun suñ ne yàlla kese gaa yi ne teg buñ ne diw ñëpp jóg di yuux ñii xam ñii di ñii di ñii di tey bu ñu waxee yàlla kenn yënguwul yàlla moo ko wax al aaya la wa iza zukira allahu wahda bu ñu waxee yàlla kese mu ne isma azzat day lemu banku bañ qulubu lazina laa yuminuuna bil axira xolu ñu gëmul alaxira day banku ñu mer kanam yi ñuul lëndëm fa iza zukira min dunihi bu ñu waxee keneen ku dul yàlla fa iza hum yabtafsirun ñëpp di fettasu génne xaalis joxe kontaan fa loolu du alquran yàlla moo ko wax yàlla moo ñu xam alaa yaalamu man xalaq wa huwa latiful xabir yàlla moo ñu xam moo tax yàlla bu waxee rek nga ni kii ñun lay wax waaw yàlla moo la wax yàlla moo ñu wax ñun ñëpp parce que yàlla moo bind jaam yi wa huwa latif alxabir bokkaale baaxul bokkaale lor yi muy def def cee bokk suquutu saahibuhu min awjai l izzati walkarama waa ji dafa kii bokkaale dafa daanu dafa rot fan la bàyyeekoo ci place u tedd yi daal di rot ci suuf moo tax yàlla bu muy misaal bokkaalekat nee na dafa mel ne ku demoon kaw asamaan picc yi këf ko yóbbu ko ba kaw asamaan daal di koy waddal muy ñëw su daanoo nu muy daanoo dootul jógaat noonu la bokkaalekat mel borom bi subhanahu wa taala mu ne wa man yushrik billah fa ka annama xarra min assama xoola ku ñu débb kaw asamaan daal lay bëmax nga daanu nooy daanoo noonu la bokkaale bonee borom bi subhanahu wa taala mu ne ci mbonu bokkaale ñetteel najasatu saahibihi bokk na ci lor yi muy def bokkaale kat sobe la bokkaale kat sobe la borom bi nee na yaa ayyuha alladina amanu innama almushrikuuna najas suratu tawba aya 28 bokkaale kat yépp ay sobe lañ da ngay dend ak nit ci tée ci jàkka ci sappe mbagg yi fees del ak ay gàllaaj ñaari mbagg yépp fees gàllaaj wala nga nuyu ko téye loxo ndeyjoor bi jël sa loxo càmmoñ téye ci mbagg yi nga daj ay gàllaaj wala nga gis ko mu takk ay lam wala ay kannaar wala ay petaaw te warul dugg jàkka bokkaale kat warul dem jàkk ndax yàlla nee na sobe la innama almushrikuuna najas ku sobe looy uti jàkk kon looy julli kuy xëy di toj ay nen di jéggi ay ndox di def ay musallas di sangu ci ay xàmb di sangoo deret di capp deret di def sa jë di sujootal ay bàmmeel di ñaan ku dul yàlla jël sa xol aj ci ku dul yàlla yàlla nee na sobe nga innama almushrikuuna najas yàllaa ko wax suratu tawba aya 28 ñeenteel annahu yujibu li saahibihi adabu llahi taala fi dunya wal axira bokk na ci lor yi muy def yàlla dina la mbugal adduna mbugal la alaxira qaala taala suratu ahzab aya 73 borom bi ne li yuadiba allahu almunafiqina walmunafiqat wal mushrikiina wal mushrikaat bokkaalekat yàlla dina ko mbugal àdduna moo tax ci mbugal la ñu nekk kenn ci ñoom xelam du dal parce que dafa jàpp ci lu dul yàlla kenn ci ñoom du am sécurité parce que dañoo jàpp ci lu dul yàlla kenn ci ñoom conscience am du tranquille parce que dañoo jàpp ci lu dul yàlla te yàlla moom ku jàpp ci yàlla yàlla doy la wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbu hasbu ku jàpp ci yàlla yàlla doy la ku yàlla doyul dara dootu la doy adduna dara du la doy alaxira borom bi subhanahu wa taala nee na ci mbonu bokkaale juróomeel anna al multabis bihi yasuu zannu bi rabbil alamin allahu akbar bokk na ci lor yu muy def doo wóolu yàlla xoolal bokkaale kat wóoluwul yàlla ku wóoluwul yàlla est-ce que jullit la ku wóoluwul yàlla koo xam ne bu ñu tegee nen ñemewul jéggi ren yi de nen yi dem wóoluwul yàlla allahu akbar xool xoolal tey ñun wóoluwunu yàlla suñ ne nangam bi diw ne nangam bi ñu ne ah lii moo gën a wóor de lii wóorul ndeysaan diw de li mu wax moo gën a wóor ndax diw a ko wax waaw li yàlla wax nag li yàlla def nag ku wóoluwul yàlla gis ngeen Moussa keroog ba mu wóoloo yàlla firawna ku tol ne firawna dàq ko topp mbooloo mi ba Moussa sës ci géej gi su xoolee kanamam firawna moo fa nekk ak ay soldaar su xoolee ginnaawam géej gee fa nekk ñi amul imaan ñu wóoluwul woon yàlla topp ci mbooloo mi lan lañ wax inna la mudrakun Moussa ne leen kalla inna maayi rabbi fa wóolu yàlla yunus ci biir géej gi jën wann ko dafa wóolu yàlla ba mu woowee yàlla yàlla ñëw ci biir géej ñu wann ko ci biir jën mu nekk ci ay lëndëm lëndëmu géej lëndëmu jën lëndëmu mbàqu jën bi ñetti lëndëm waaye mu wóolu yàlla woowul kenn kan la woo laa ilaha illa anta subhanak inni kuntu min azalimin yàlla daal di ñëw ñun wóoluwuñu yàlla ñun bu bu ñu fakkastaloo duñu woo yàlla bu ñu yaakaar duñu yaakaar yàlla bu ñuy wóolu duñu wóolu yàlla ku dugg ci oto oto bi rëngi-rëngi doo woo yàlla boo xoolee oto yëpp ay gàllaaj la baar yi boo xoolee buntu kër yi ay gàllaaj la boo xoolee ndigg yi ay gàllaaj la boo xoolee mbagg yi ay gàllaaj la boo xoolee tànk yi ay gàllaaj la liir bi juddu sax foog ñu takkal ko gàllaaj wóolu wunu yàlla juróom-benneel ci mbonu bokkaale lor yi muy def day yàq individu yi di yàq société moo tax société bi yàqu parce que individu yi ñoo yàqu waaw ku xëy foog dëkk boo dem am na fa guy gu ñuy wër xeer bu ñuy laal wala bàmmeel bu ñuy sujjóot ñett yi rek la dëkk boo dem am na fa garab gu ñuy wër balaa ngay génn dëkk bi wala xeer bu ñuy raay balaa ngay génn dëkk bi wala bàmmeel bu ñuy sujjóot balaa ngay génn dëkk bi fu ñu jëm ñu ne quatre-vingt-quinze pour cent musulman bokkaale guddeeg bëccëg vingt-quatre heures sur vingt-quatre xew-xew da ngay gis xew-xew boo xam ne lépp bokkaale la ba jeex ci kaw ba ci suuf lépp bokkaale la yàlla amu ci place kenn du julli kenn du zikr kenn du tudd yàlla kenn du wéetal yàlla ci Sénégal fu ñu jëm allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna ala tibai wa arina albatila batilan warzuqna ala ijtinabi allahuma ya muthabitu alqulub thabbit qulubana ala taatik allahuma ya haadi ihdina sirata almustaqim صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله
Allah